ayca ayca ayca waajal tabaski version 2021 Alphie Cuisine ànd ceeg Reen Herbes et Épices bi 17h la chaque jour ayca ñu dem ci recette du jour bi. ayca waa Alphie Cuisine waaw koy heure bu baax bi jot na ñu dem ci recette du jour bi tey dañuy defar sauce soble waaw gars yi laaj nañ ko sauce oignon sunu yëf la ak euh, sauce verte waaw sauce verte bu am ñam sax waaw koy tey ñu fas yéene utiliser épice euh, mélange d' épice bu soos bi. Euh, je crois que def naa piquante bi voilà le temps que ñu ciy ñëw sauce verte rek comme euh, sauce verte ni ñu amee habitude di ko def léegi suñu yëf la waaw kañ bokk na ci ñun daal euh, nekk na sauce bu bu complet boo xamante ni day neexal grillade di neexal méchoui neexal lakk yàpp waaw neexal wi ci ñoom brochette ak ñoom brochette fois brochette viande voilà famille verte yëpp a ngi ci lu ci mel ni naana persil plat coriandre céleri oignon vert laaj tuuti jinjeer voilà euh, céleri bi laay def noonu le temps que may def may lim céleri bi euh, bu marché neexee dinga koy am ci marché bi laaj waaw parce que nekk na soos boo xamante ni faw mu saf laaj ndax euh, ndawal moom lu ciy dem il faut que mu am laaj poivron vert piment vert am na ñoo xamante ni dañuy bëgg bu saf bi man bu laaj bi laay jël piment vert ak oignon vert waaw raxas ba mu set parce que ku ne xam na ni genre herbe yi dafay am euh, ay gunóor ci biir donc xooj ndox euh, bàyyi ko fa euh, yëpp salte yëpp génn daal waaw kay citron vert pressé naa ñaar waaw kay limon bi mi ngoog moom it dina ci dem gu acidité bi dafay neex ci sos verte voilà ñu daal di tëj nag yëngal bàyyi mixeur bi def liggéeyam sinon mën nañ ko dëbb waaw soo ko dëbbee itam dangay am même résultat voilà léegi suñ ko mixé première round ba pare def naanaam naana euh, def persil euh, coriandre euh, ak persil plat voilà yeneen ñetti herbes aromatiques yi ñoom ñoo ñëw dugg noonu am na ñu ci yokk man des fois ma yokk ci tuuti romarin frais waaw kay mu àndi ci goût bu neex léegi nag ma def huile d'olive mu daal di émulsionné wu waaw kay mixel ba mu mokk ñu daal di koy yàkk nag sàppali ko waa léegi nag euh, ren herbe épice euh, dugg en action waaw kay mu nekk euh, ay gaamu épices yoo xamante ni pak tabaski lañ leen indil proposé leen ko ci marché bi mu nekk ay épices yoo xamante ni neex na ci ndawal neex na ci sauce neex ci légume am na yu safkaani yoo xamante ni dina neexal tufe neexal neexal sunu sunu waajal tabaski daal waa léegi dañuy xorom parce que nekk na sauce boo xamante ni dañ koy utiliser comme booy defar comme booy lekk moutarde ak ndawal ma jël euh, épice sauce bi nga xamante ni euh, moom am na paprika tomate origan sel ak euh, mélange épice voilà du changer couleur bi dina ci def goût bu neex boo xamante ni sauce verte épicée daal tey moom la ñu andi voilà piquante bi tamit moom daf ciy andi goût bu neex boo xamante ni soo ko si deful doo ko mën a xam composition paprika la am am kaani poivre sel ak mélange épice waaw léegi nag su ko defee ñu daal di mélanger Euh, jaxase ko ba mu jaxasoo réserver ko mën nga ko bàyyi ci frigo bi euh, mu mu nekk fa temps boo xamante ni lu toll ci deux jàpp trois semaines nga tëj ko ci bocal boo xamante ni euh, dafay tëju ràpp daal. ok léegi nag soble bi soosu soble bi nga xamante ni gars yi dañ naan ma Alphie naka ngay toggee soosu soble doo def doo def sauce soja doo def bouillon. te dafay dooree waaw kay man daal sos soble ni laa koy defee sos soble bu gën a simple ah sos soble bu simple bu woyof boo xamante ni euh, pour accompagner ay lakk grillade waaw ñun suñu kër nii lañ koy defee donc dagg soble bu grossièrement def dëwlin euh, rosi waaw bàyyi ko fa mu dee tuuti ñu daal di jël suñu nokkos royal bi nga xamante ni moom la ñu jukkoon defar su ngeen bëggee euh, recette vidéo nokkos royal bi da ngay dérouler ci première vidéo yi moom la ñu publier le le 3 voilà vidéo bi ñu publie le 3 juillet mooy nokkos royal bi soo ko demee seetaan di nga mën a reprendre nokkos bi voilà wax naa la ren Herbes et dafa defar épice boo xamante ni spécial sauce la dafay dooreel sauce parce que am na laaj am na mélange yoo xamante ni moom la ñu def ci biir euh, def ci tomate def ci paprika mu lay jox couleuru sauce boo xamante ni mi ngoog naam damay def sax damay dolli nokkos parce que sunu ay habitude la ñun sunu ay sauce dafay saf sàpp waaw sauce oignon moom moom kenn duñu ko jàngal moom ok léegi nag suñu mélangé euh, yamale suñu gaz bay sos ba may dooree di compoter dégg nga maam euh, génne ay sucam génne ay odeur am génne ay couleur am ok léegi nag euh, ma daal di jël légume waaw légume man maa ngi naan soos rek dama tey bi yoon dama def légume comme légume la soos oignon légume la ba pare def ci épices soos voilà ñaari la mélanger mi ngoog dugal ko ci biir yaa ngi gis couleuru épice couleur épice bi ni mu ni mu ni muy ni muy doorelee soos kul épice bi rek soo ko jëlee def ko ci soosu soble ci soble rek dangay am da am day fay prix voilà léegi nag ñu daal di mélanger man nag su may defar soos boo xamante ne pour ndawal la damay bëgg soo soble bi croustillant duma ko bàyyi ba mu dee comme sama yaay ni mu koy bëggee moom day togg soos bi ba dootoo gisati soble bi voilà euh, léegi nag nga daal di def sa tuuti vinaigre def sa tuuti moutarde sànni ci sa épice piquante voilà mu relever goût bi ba pare euh, yokk couleur bi voilà mu nekk soos bu doore sauce bu tarkal la daal waaw soosu tabaski la daal <laughs> mi ngoog sama gaa yi léegi jël naa benn euh, boîte olive dénoyauté bu ma daggat moom laa ci def à la à la fin mi ngoog nii laa koy bàyyee ba soble bi croustillant man nii laa ko bëggee mais su fekkee tam da nga bëgg mu gën a dee da koy bàyyi mu gën a ñor voilà euh, herbe ren herbe épice wax naa leen euh, jagleen na leen benn jeu concours boo xamante ni pour yéen suiveurs yi la mën ngeen gagné ay paquet ginu euh, épices waaw yooyu da ngeen di commenter di liker di seetaan vidéo yi dinaa ci tànn ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jox seen ay euh, épices balaa tabaski bi waaw kay seetal ma boobu soos bu baax yow lii boo ko dooree ci mburu am lu bëri de séeréer yi kontaan yii soosu soble rek nga raay ko ci sa mburu <laughs> oh, defal sa tuuti café waaw koy sauce verte baa ngi noonu Penda xam nga ni sama sauce verte nu róowul ak sa sauce verte de waaw koy maay sa professeur mi ngoog léegi sama gars yi aywa ñaari soos a ngi noonu pour mën a accompagner euh, waajal tabaski bi ren herbe épice wàcce fi ay épices am pour wàcce ay tabaski bi nee naa la paquet du paquet jinu tabaski bi 6 lay def buuxante leen ko xëccoo ko parce que stock limité la bala muy jeex waaw koy jël leen numéro yu baax yi jël site internet pour yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk Europe waa Belgique ñi ngi laajte nan la ñuy def ba jot si jëlal numéro téléphone yi nga laajte am sa GP ñu yóndee la sa ay épices waaw Sénégal neex tabaski bi saf sàpp ok on se donne rendez-vous demain incha allah bu leen fàtte nag di abonné wu di liker sama gars yi abonnement yi yokk leen abonnement yi nag Alphie Cuisine ci plateforme yëpp Instagram euh, Facebook ak YouTube ak euh, TikTok voilà ak Snap fu ngeen dugg rek fekk fa Alphie Cuisine bu dul photo rek di vidéo sama gars yi kenn du yéen. ca waajal tabaski version 2021 Alphie Cuisine ànd ceeg ren Herbes et Épices bi 17h la chaque jour.